Bouba il est confiant il est confiant ce gosse nank attention à Bouba attention à Sokh bu ndaw yéen ñaare xale ngeen te liggéey ngeen mel ngeen li ngeen war mel ku si respecté wul sa morom sa morom dina la daan béy ak goxam nga doog xam nu mu la daanee. al bi nee nga sa sa protège dans Bouba Bouba dañ Sokh joxaat na ko affaire yi ni nga tojul tojaat ko Bouba ndeysaan fair play Sokh ne la Bouba li nga sànni tojul de jëlal ma tojaat ko ayca ndeysaan mu ngi noonu daal du arbi bi ngi wax ak li lamb bañ mbokk yi bu leen ko fàtte wala tey le 9 juin mbokk yi atum 2024 tey di dimanche ci arène nationale Kandji wala TDR Events présente nous affiche bi daan na Braak Malika face ah, à Sokh bu Pikine ñaari xale ku nekk jël benn joor Sokh dem na si kawam Sokh même na ko eh Sokh attention bu baax nii lay bëree dee mel ko yegal am na ay jotam yu muy def taxaw na bu baax taxaw na eh dem na ay muy def ay jotam moom bu ay tegtalu làmb la ko mi si làng yi génnagul. baatulu lamb la arbitre la wax na gële seen diggante Sokh bu ndaw face à Bouba mbëru soj fallu sekk baa ngi noonu ndeysaan moo ngem moo ngemu lu ruus li mu Bouba Sokh ngem moo ngemu logos bi Sokh même na ni nga Bouba taxawal ñu bëre waaye loolu mën naa ne stratégie lamb la hey Sokh ak la LS Pro fër nga féete ndeysaan Sokh ak Bouba ngi noonu ndeysaan Sokh sekatal na ko Sokh sakatal na ko Bouba mel ni ku ko ragal te ragalu ko ani waa Malika ani waa Pikine Sokh ma woon noonu kàl lu ngemboo Lagos bi Sokh numéro un mi sa ginnaaw dubal la seng sa ginnaaw waaye Bouba moo ngemboo ngembul lu noonu wan ma karam sëñ Fallou Seck mi ngi Malika mi ngi benn ñëwul ay Bouba sëñ Fallou ñëwul de mi ngi mi ngi benn baraak toog di xaar Sokh ak Bouba round d'observation dara amagul maa ngi lay nuyu sëñ Alla ba borom Bambey bàyyi bépp fa maa ngi lay nuyu ndeysaan maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow Diagne efficace sama waa ji maa ngi lay kontaanee bu baax Laye Les Pro ñaari xale yi ngi si géew bi Laye Les sama waa ji. nuyu ku baax. Laye Les Pro borom flocage yi. mais sëñ Alla borom Bambey kenn du moom. sëñ Alla borom Bambey bàyyi bépp fa. waaye ndeysaan Mouhamed Ahmed ku baax lan ñu ko marié ku baax bu amee soxna ma dafa soppeeku ku baax ndeysaan calme-toi Ahmed calme-toi Ahmed da jar ba si la wax na gën a seen diggante ñaari xale ku ne jox nañu avertissement mën naa ko tuddee avertissement verbal pour ñu bëre Sokh Bouba ñoom ñaar ku nekk jiital pied droit ku nekk teg si tànku càmmooñ tànku ndeyjoor Sokh ak Bouba loxo yaa ngi laalante waaye dara amagul pour fañ xewagul dara xewagul ndeysaan Serigne Ndour sama waa fan nga fay te borom Italie ani BBC mbokk yaay ñaabu ndaw maa ngi lay nuyu foo fay te ndeysaan soxo ngi raam jëm si kawam bu baax mbéb na taxawaat soxo méb soxo eh attention soxo bu baax soxo li ngay def teg si kot kii yëpp beneen daanaan la. bukki timis la lu mu lëndëm la lëndëm for yàpp eh soqal yi lan la soqal yi lan la loolu bokku ci soq bu baax dugg si gàr rek yi bu baax daa jël ci meekaayu soq bor ko soq jël ci meekaayu bu baax bor ko soq même na taxawaat eh door xeex attention jàppoon nañu bu baax jàpp na ko soq bu baax eh faqat faqat faqat faqat faqat na ko bu baax bañ na soq bu baax. laay la la Bouba mi ngi jàpp Sokh ngi jàpp ñoom ñaar ku nekk ngi jàpp ana xaca taf ana xaca roof ca baxal day saa ñoom ñaar jàpp nañ ku nekk te nga sa gañe morom Sokh na ay la ma gis la waxoon mi ngi noonu Sokh nga ca baxal waaye bu ñu la séenee du waax bu ñu la séenee mën nañ la yokk a Sokh eh li ngay bëre lan la da nit yi nee woon naa leen xale la nañ ko bàyyi xel nee woon naa leen ni mu toll jëmm jàpp doole bopp la noonu ni jëmm ji mel doole noonu nee naa la soo boo respecté wul mu dal la respecté ko moo tax mu dal la soo li ñu bëree baaxul soo li ñu bëree tegu ko si yoon booy bëree sa morom di sa naaw la nga koy jox cër soox xale nga nag làmb ak sa kanam defaru waatal da nga xam ne ñàkkoo dara si làmb mbëru suñ fàllu sekk ba dànn la la te Dubaay mi la tànn laa war a lii mooy lamb c'est l'espoir qui gagne c'est l'espoir qui gagne taalibe xoolal ma xale ya ñii ñoo ànd ak kii nga xamante ni mooy Bouba xale benn baraag yaa nii Modou Sëñ Fallou Seck wax leen daan na ko Bouba yaa ngi si géew bi ndeysaan gis ngeen ko mbër la dafa bokk si lamb te nañ ko bàyyi xel nee naa la Bouba mbër la si lamb la bokk te nañ ko bàyyi xel bu mu daanee taalibe ñu ne jënd waay mu daan la joor. ci laa pare si moom ci laa xam ne mën na dal ku ne mi ngi noonu xale noonu ndeysaan nañ ko bàyyi xel si làmb la bokk na egsi na si ay moromam bu baax na bëre ku ne jot naa ay moromam mën na bëre ku ne li soq bëree moo baaxul kawul du xale yaa ngi nii benn baraak la ñu jóge ñii ñoo dëkk benn ñii ñoo ànd ak Bouba ma xale yi ndeysaan lii dafa toog si taaru làmb lii daa bokk si taaru làmb ndeysaan làmb la kay làmb la lii daa bokk si taaru làmb mais lamb mais sax mu ni soq lu mu bëree baaxul. non baaxul kay parce joxul mbër mi cër te boobaa xamul ki muy bëreel xoolal boobaa fi mu ko vidé ba mu jeex mu àggale ko. jokk ko wóob bopp bopp lépp xam-xam ko maa la wax loolu. man damay bëgg booy am xam-xam boobaa mi yàgg naa leen wax bàyyi leen ko xel sa la joor tey xoolal li mu dugal xoolal lii kaaligu lii ku koy am di fo xoolal lii. non man da laa wax ne la booy yi ma yor ne mën nga la dégg ne parce que man du ma joxoon ku mënut a bëri sëriñ. sëñ Fallou Seck ku indi. hop hop hop ndaa doomu sëñ daa war a bëre. kii dañ loxo ndax bu baax suñu booy la te daa yaru te koñ ba mu dëkk ku ne xam na ne daa war a def. ki mu daan mooy kan. non daan xale bu dégg bayaat xale bu nangoo entraîné mais bu bu ñëwee ba fii day fo. moom sox. ma a ah, xoolal. tegu kii kii na yow nan la sa di waddee ngay joxe nen doo jéem a sori la nen bi sax mais nan ngay jaxaate fii di dóor fee mais nan ngay caxabale naan ko fii laa jëm. waaw yooyu waaw yooyu mooy fooy. waaw yooyu mooy fooy. bu baax la jëm. non buubaa ku koy bañati maa daan la joor maa daan soq de non daa daan daa ñoom mën na xaar ñoom baaba jaxal buubaa ma kii ah, Mama Lamine Bouba. Mama Lamine mi waaw Mama Lamine de Bouba. mais bi est-ce que mu fa koy rawee maa daan la jox maa daan booy bi doo ko joxe ay morom moo doole dëgg neexul booy ay ay vingt points la daan ko comme genre Doudou Sané la comme genre Talfa Talfa sept combats la sept victoire la ñëpp a ngi koy riir waaw kon booy bi moo paree Talfa ay victoire comme du neew. tabaski lañ jëm. waaw Omaro xar la jël laa dun. waaw mooy dugal moteur lan nga gisee geste bi Omaro def. non Omaro loolu lañ koy doyee te boo boo nekkee kippaaru ndaanaan da ngay jëf jëfi ndaanaan ban kippaar nga ne muy kippaaru ñoom waali war ngaa mën a maye lu bëri war a mën a joxe idée yu bëri làmb ji nga dimbali si xale yu bëri ndax xarmee te ji mbër mi bu ko jëlee kum ko may dina mel ni yow la may dëgg neexul parce que tey jii lu baax rek la ñuy roy mais lu bon kenn du ko roy ndax ku foogul xar mi boo dalee si xar mi di nga xam ne xar mi mat na xar. <laughs> nan nga leen ñoom ñaar seen état de forme mu ja mu ja ceddo la. ceddo la xoolal saa yow ne dañ koy bu ñëwee day jéggi moo moo moo moo moo ko raroos dañoo xaw a yem ay ay ay ay ay victoire xoolal bi daam seen ñëpp a joxoon daam seen favori da ko wax da bëreloo ba mu lang mu daan ko tay double moteur moo ko xaw a sàcc doole double moteur moo sàcc doole. mais tey est-ce que dina ko jariñoo tey bu tegul xel xel mu bëri teel a bëri ji bis bu jéemee liir combat bi ñàkk ndax mu jaan liir ko combat la mais avantage kan la ñàkkan bi bi xeex bi avantage mu jala mais du avantage kee jàpp bu dëgër doo ko xeex a ko war ndax ndaama la te daa gëj si géew mais kii koora koora ko war parce que ndaama kenn du ko song poids lourd kenn du ko fekk ji ndax poids saa yoo ko fekk see da koy arrangé mais saa yoo ko jegee da koy xatal mais moo ca nekkul koo xam ne ni tey jii dafa tardé ci lamb heure bi warutoon fekk mu dépassé fii mu nekk. non mooy yoon parce que daa am un peu de hmm. bi mooy daw combat yi. Hmm. parce que jox nañ ko Mambala mu daw jéggaan naa ko meneen combat mu daw. Hmm. mais boo yàggee daw bu yàggee promoteur yi da la fay te doo am benn problème mais mu ca jàppale jooy mais confirmé na turu Yoff. dëgg mais mais ñaari mbër yi ne ni gëj nañ ci public bi. ñaari mbëri yan xam nga gëjëwu fi noonu. mu jàpp bëri na ren. daan daam seet. Ah. day confirmer si. mais këram double moteur. Ah. daa daa daa daa daa am benn retard bu ndaw. bu muy war a reprendre. Ah. léegi bu koy reprendre day xool xale bu gën a tàng. mu jël ko bu confirmer hmm. ñu bàyyi ko mu dem bu bu confirmer moom mu dellu ginnaaw. ñu ngi lay jaajëfal mais tey maa nga TFM. ngoon ngoon maa nga TFM. melo melo melo melo kay kay kay. nuyu naa la. li nga bëri nii tey lan la ngeen gis. waaw tey tey nii la mënoon a demee quoi tey dafay jóg man ko jóg benn baraag jóg dalu ko ku jóg tey nii laa mën a bëree. te bëree gu ma sax. wane ni ma war a bëree bëree gu ma ko. balaa loo xam ne ni mu war a ni ma war a bëree ñu jox ma ponkal. kii dafa bokk ci làmb. li mu bëreeg yow est-ce que war na ko bëreeg yow continue yaa ko daan waaw da wax nga am na xeer dafa yaa aadama am na xeer dafa yaa aadama moo ëpp doole loolu la jaar yaa aadama moo mën dafa fekk amul a mën a woon bu doon naa bëre moom yaa ngi si digg géew su ma ko jàppee kon da nga koy daan. lan nga ko waraloon lan nga war a tekkil bëre ba nga tekkal. waaw laamu tey ñu doom sama ginnaaw la rek ñu doom sama ginnaaw te dama ji ñëpp jóg te lii rek a ma waral tey ma jàpp ndax. ana sëñ Fallou Seck. waaw sëñ Fallou mi ngi fi jàpp na si combat bu baax di sant sëñ Fallou Seck bu baax a baax a baax di sant ñoom jëwrin moom sëñ Ba sama sëriñ sëñ Basirou Kane di sant waa Thiès waa Daaru Kane Medina Fall maa ngi ziar ñëpp di bëgg ñëpp di wax kontaan naa si ñoom gis nañ taxawaay bu baax a baax